Mamel ça fait presque un mois ba xale yi nag fipp ñoom tamit génn daal di amal grève bu mag bu nekkee euh, vidéo bi yemb na au niveau de la régie ñu tegal ñu ko ñu seetaan. Jeanne yow lan la vidéo bi yembagul. Aïcha le temps muy yemb euh, Neige. Mhm. Euh, dañuy waxtaan tuuti ak Papa Ndiaye ah. d'accord Aïcha dinañu <laughs> ñëwaat ci moom. parce que Papa euh, mi ngi insister pour bëgg ñu jot. naa mhm. ah, ko nag mu bëgg waxtaanee yu ko naqar yëpp ci <laughs> ci fecc mi. Mhm. d'accord dinañu dinañu ñëwaat ci yow le temps sa vidéo di yemb Maguette aujourd'hui Tëngéej nee nañ yaa fa teg tànk Tëngéej moom nee nañ yaa seen waali sekk Ah, euh, et dafa romb loolu même au sein de des orchestres yu mag yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal danga leen di defal seen perk est-ce que euh, bi ngay lancé wu peut-être dans ci sabar ak tëgg ak yu ni mel xalaatoon nga ni lii nii yëpp dina la ci fekk. waaw bien sûr parce que ñun moom suñu famille xam nga ñoom ay intellectuels lañ da ay jàngkat lañ quoi. Mm-hmm. sam dafa. teel a jaay jël sabar jaay ko mm-hmm. joxe ko séddale ko ay rakam pour que ñun parce que sabar fu mu nekk rek ñun du ñu jàng mm-hmm. mais man kese maa ci rëcc maa ci rëcc def musique ah euh, yàlla dimbali ma nit nag sunu borom mooy maye donc waaw dinga jàng nag mais nit bu donn euh, facilité bi muy am ci adopté ci lu mu mën a nekk mooy mooy mooy gën a gaaw donc ndax lu waaye doon mu dëgër aar moom dañ ko doon ci sama yaay ajaratu Fatou yaay mm-hmm. moom ma dàq taasu fuuf. sam papa ma dàqoon tëgg fuuf. donc ñu judd ci loolu màgg ci ah xam ko tamit bu baax xam sabar bu baax. Mm-hmm. xam histoire parce que mbir boo ci nekkee da koy xam. Mm-hmm. waaw da ngay da ngay xam source bi xam lu ko tax a jóg xam lan la lan la lan la wund ak lan la représenté. waaw ñun dañu teel a jàngal loolu moo tax euh, yàlla teel ma dimbali nag ma teel a génn Sénégal. Mm-hmm. joué ay ak yu mag a mag a mag a à travers le monde entier ci ndimbalu la grande diva Coumba Gawlo Seck ndax moom moo ma wane ak àdduna bi daanaka. Mm-hmm. waaw daanaka jaar naa ci ay groupe Gorgui Ndiaye Super Éclair ñoom Pape Diop Fara def salsa cubain mais Coumba nag moo ma waral àdduna. wane la ma ak star yu mag yoo xamee ne que euh, ñoo ma poussé à ce que ma am benn branlon bi ba mën a accéder ci ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. di fi def mhm. musique. Mhm. donc euh, commençant par Youssou Ndour nag ba ci suuf amul ku ma liggéeyalu ñoom ñëpp seeni album euh, li coow li bari bari bari maa ngi ne tekk mais ñu ci bari. du ma ne sax ñoo leen def star mais man dama leen def ay star mm-hmm. waaw mm-hmm. Sidi Diop Tarba Mbaye Wally Balago Seck mm-hmm. ah euh, Pape Diouf star yi nekk Sénégal yëpp dañ may soxla ci seen ay euh, produits ma ñëw du ma ñëw en tant que percussionniste damay ñëw en tant que percussionniste ak arrangeur parce que rythmiquement parce que mbalax la ñuy def suñu musique bi mbalax la tudd ñu ñooy yor section rythmique ñu ñooy partage rythme yi ñun ñooy génn ci xew yi ñooy dem ci mariage yi ñoo mm-hmm. xam lan mooy dox ci ci ci li nga xamee nekk nii nii mooy nekk tendance tout le temps xam nga mm-hmm. ñu koy jël di ko indiwaat ci musique bi raxasaat ko defaraat ko pour que mu mën a nekk ay rythme yi adopté ak si li sénégalais yi bëgg looloo waral gars yi doon ñu sollicité lu bëri ah ñoo ci ay projet démb rek maa ci projet di euh, nuyu Bouba Ndour mhm. nga xam ne moom visionnaire bu mag a mag la ah ñu ngi nekk di liggéey ay projet am koo xam ne nag na fi mënuma ko bañ a wax ci suma carrière mhm. muy Mbacke Dioum munuma mhm. koo mënuma bañ a wax ci suma carrière parce que bokk na ci ñi nga xam ne que bii de dañ ma gëm trop fonk ma trop daanaka projet yu mag yi may def yu ci ëpp ci mm-hmm. loxoom lay jaar mm-hmm. gëmul kenn ko dul magay parce que xool na ko Youssou Ndour lay àndal ay kon foo ko gis gis ko kon moom c'est un grand mélomane euh, nekk producteur bu mag donc du du xool nit ne ko yow la ci ci hasard mm-hmm. donc ma nekk këram dëkk fa di fa lekkee di fa naane di fa fanaan nekk ci wetam mu may conseiller nekk suma lépp donc bëggal ma lépp maa ngi koy ñaanal Mbàkke yaa xam li nga bëgg ci ci magay bëgg ko ci musique Sénégal mhm. yàlla na la ko sunu borom defal chéri mhm. soxna yàlla na la ko sunu borom defal taxawu la ndax li ngay taxawu ci Sénégal barki dem boo njaay rek la lañ opéré presque cent mhm. personnes fii gratuitement mu jële leen bitim réew indi leen pare ñu jël bagage yëpp mayaat ko waa Sénégal mu jaar ci loxoom donc chapeau ñu koy ñaanal moom it ah euh, li muy def ci suuf mu ëpp na ko yàlla sàmm mhm. donc euh, Nafi mhm. ci ci ci ci ci ci gàttal daal gaa yëpp maa ngi liggéey ak ñoom. Mhm. ayca nañ ñu may kon ambiance ñu euh, kii tuuti. ñu euh, kii tuuti playback nga bagal ñu ko parce que tey moom dama bëgg ñu dellu carrément Rufisque laata ñuy ñëwaat ci Charlène ak ah. euh, tonton Sène pour euh, waxtaanaat ci série bi dress code bi la lay doon xale yi ci ci naka lañ nar a ñëwee actrice yi et cetera loolu yëpp dinañu ci ñëw léegi Aïcha Mara bu baaxee nga jox ñu ambiance yokkal ñu ko fii ñu focc tuuti du dëgg